mbokk yi programme bi ñu taxawal nii ànd ci ak yéen muy recrutement 2000 socio entrepreneurs dafa doon loo xam ne dañ ko door y a à peu près deux mois fii ak sept jeunes yoo xam ne dañu am seeni diplôme yu fasantu ko bañ leen boole ñu xool lan lañ leen war a defloo ñu xool ne amuñu capacitation ndax dañu war a xam ne suñu jàng mii dafa doon jàng boo xam ne jàng théorique la amul applicabilité ci biir marché de l'emploi nekkul en phase avec le les besoins de de de la production ou bien même des secteurs des services ak yooyu looloo tax ci gàttal entreprise yu bari du leen intéressé pour ñu jël ay stage parce que ça le coûte cher stage yi bu ñu ñëwee il faut nga jàngalaat leen loolu aperçu la rek la kon ñooñu bi ñu leen xoolee ba scruté fi ñu jaar ñu ne nañ leen utal capacitation si laa leen jàngale li nga xam ne mooy scribe scribe bi bi ñu ko jàngalee ba ñu paree mën na leen am ngeen dara loo xam ne xam-xam la boo leen téye ci seen loxo kon nag il faut que xam-xam boobu ngeen exploité ko boole ko ak li ngeen xam ñu créer leen benn société bu tudd YTV muy télévision en ligne bu nga xam ne dafay def entrepreneuriat des jeunes ndax programme bi ñuy tëgg muy 2000 socio entrepreneurs dafay dem ci secteur d'activité yëpp dans la pêche dans l'élevage dans l'agriculture dans le secteur de services partout fépp fu nga xam ne économie koom-koom mu nga fa dinañ ko saytu ba xool fan lañ ci mën a amee ay emploi ñu créer ko pour les jeunes et ci yéen la ñuy àndal bu boobaa dañuy soxla communication donc tant qu'à faire ñooñu ñu commencé communication bi ñu commencé ko avec un nouveau support bu nga xam ne mooy Scribe bi ñu créer société boobu firnde bi mooy lan jeunes yoo xam ne masuñu am liggéey jox nga leen une perspective jox nga leen une ambition jox nga leen tey jii loo xam ne dinañ ci mën a occuper wu chaque jour seen temps bi nga xam ne dañ ko daa perdre ci loo xam ne amul solo léegi ils sont concentrés à sept ci benn objectif di ci liggéey ku nekk di ci nàccal sa xel foofu ndimbalu yàlla foog mu dugg fa foofu foog nga ñaay am fa foofu foog mu am réussite kooku mooy les sept premier emplois yi nga xam ne moom la ñu créé dans le cadre de 2000 socio entrepreneurs exemple boobu buñ ko saytoo dafa doon loo xam ne mën nañ ko dupliquer dans tous les secteurs tous les secteurs kon nag tey jii ñu ngi ci 2000 socio-entrepreneur comme projet de recruitement def nañ ci sept 1993 gars yi c'est la ñuy ànd man ak yéen